Euh, ginnaaw ba ñu gërëm internet yi nga xam ne itam ñu ngi ñuy suivre ca solution info ci waxtu wi leen ndax fa lay mm. fa lay daw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, dañu war a waxtaanee ñu ni sa incha depuis euh, meeting bu Ousmane Sonko ca Kër Massar dañu jàpp ay nit yu bare bari foofu la ci Kër Massar jàpp ñu leen ñu toj wala ñuy yàq wala ñu sànni xeer wala ñuy xeex fu leen fekk maanaam da ñu bari dañu leen a dogaale ci yoon wi defe naa ñenn ñi sax Ousmane Sonko junjoon na ko ci yoon wi ni bu ñu leen bàyyiwul dina dem Mbuur Euh, ci su paree ca meeting ba ñu ne nag bi ñu ko xoolee li ñu jàpp lépp dafay toll ci 27 personnes yoo xam ni ñi ngi ci biir kaso bi mais li ci gën a garaaw nag itamit Ousmane Sonko jël na tànkam dem seeti leen mhm. ñu daal di koy xañ ñooñu nga xam ne da leen doon seeti te ñu jàpp leen à cause de Ousmane Sonko loolu lañu bëgg a waxtaan nag ci actualité bi muy tombeek li ma dégg euh, euh, professeur Oumar Diagne wax ko mhm. ni président Macky Sall ñett yi rek la ko manal muy tere koo wax ci réew mi tëj ko kaso ak ray ko mu ne nag bi ci gën mooy mu bàyyi ko mën na ci réew mi di wax su ko tëjee kaso dimbali na ko ndax bu fa demee day gën a man a xalaat di bind ko def yëf suñ ko reyee itamit mu jàpp ni dafa sahit ndax réewam lay xeexal ñu bari nag tey loolu lañu bëgg waxtaane ñu bari nag ni est-ce que du tëj dem ba jàpp ni acharnement la ndax nag wax dëgg ñuy jàpp bari na waaye dafa mel ni beneen camp bi a féete mm-hmm. donte ni démb premier ministre bi nag déclaré na nee na du ñu bàyyi kenn mu yàq réew mi mm-hmm. xam ne dafa am uh, loo xam ne mën nañ ci dem te baaxul mooy mm-hmm. dem ba nekk ci état policier état boo xam ne policier ak gendarme ñoom ñooy régner. Mhm. dem ba ñoom ñu waroon nekk force de l'ordre doon force du désordre. force du désordre. waaw maanaam ñoom danoo waroon di régler problème mais di créer problème. Mhm. waruñu egg ci niveau boobu. parce que ñoom bu ñu eggee foofu ak askan wi rek. Mhm. œil pour œil dent pour dent la maanaam garsa garsa gi day ñëw. te ñoom ak askan wi waroonu xolantee noonu. mais ci boobaa ci askan wi lay métti. non non mënut ci askan wi. parce que ñoom bu si méttiyante rek ci askan la ñuy dem ci lan bokk. comprendre nga fi may waxee. Mhm. ñoom nan xam ne képp ku ci wàcc yegg sa kër yaa yaa ngi ci askan wi. kon nanu xam ni nguur gi war nañu def yartu xeexukaayam kaayam. Mhm. xam na démb man bi ma gisee waa APR di meeting Pikine. Mhm. yéex naa ko yëg sax. waaw mais dama ci kontaan. parce que xamu lu ma wax dama ne démocratie nii la war a demee. parce que man li ma xamoon ci Abdoulaye Wade mooy opposition bi dañuy daje fii. Ablaye Wade ñëw def mobilisation ci VDN bi ku ne di bàkk sa moroom ni maa la ëpp mbooloo xeexu politique man loolu laa doon gis. Mhm. mais bu demee ba nguur gi xaw a xeeb mbooloom wala mu xeeb ay militan am jël justice jël takk dere bu ko def ngànnaay day compliqué. keroog nag maa ngi koy wax ci li xew Kër Massar sànq ma ni la fi ñu egg ci ay xale yu doon sànni xeer loolu lan wax. Mhm. ba fetal mun fa jug. Sénégal war wun egg ci niveau boobu na leen jàpp yóbbu li war ci ñoom ñu def ko mhm. mais Kër Massar da ngay jekk damay jekk-jekk ma ni est-ce que nekkuñu ci état d'urgence wala ci benn couvre-feu bu ñu yëgul depuis que Sonko jaar fa ah waaw parce que da ngay gis takk der taxaw intimidation bi nappaate bi mhm. te li naan le tigre n'a pas besoin de montrer sa tigritude daf ci am loo xam ne yow te tëni rek wane na ko ak ngànnaay li nga yor yooyu loolu rek doy na mais nag boo ci tegee bay xoxatal askan wala nga leen di teg leen ni mhm. nekkatun ci fair play mais nekkatun tamit ci jeu démocratique bu normal. parce que ñooñu ñu ngi doon jóge fee dem di ñëw mais jàpp bi leen jàpp téye leen la lay jur. pour man loolu du pexe day gën a xamu taal bi rek. parce que tey jii. Mhm. président Macky Sall. ñi ko bëgg bu ñu ko utal ay noonu nañ ko utal ay soppe. est-ce que xam nga ni képp koo tëj kaso. Mhm. ay mbokkam def nañ la adversaire am ah, dëgg la. loolu tax Macky Sall pour man bari gi a bari adversaire ci réew mi. Mhm. ba am benn gis-gis moom. baaxul ci moom d'accord bu xajee rek dinañ ci ñëwaat incha su ka euh, ñu bari nag nee nañu président Sall li muy def it baax na ndax réew kenn du ko bàyyi noonu rek fu waay neex lu waay neex def lu waay neex kii mais est-ce que bu ëppee i tamit duñ jàpp ne acharnement la ci benn côté <laughs> maanaam jàpp ko bari gi. jàpp gu bari gi waaw euh, moom euh, président Macky xam am na yoo xam ni. Mm-hmm. Euh, dama ko fi mos a wax ma ni ko ma ni Ousmane Sonko tey doole ji mu am nii yëpp. Mm-hmm. président Macky moo ko may xam nga loolu dama ko fi mos sa wax. moo ko may waaw bu baax xam nga ndax lan. Mm-hmm. gis nga tey bu ko bàyyi woon mu nekk ci li mu nekk. nekk ci yoonam. kenn kenn mu nekk ci liggéeyam. tey kenn du kenn du am kenn du xam ne Sonko mi ngi def nii mi ngi def nii wa ngi def nii. mais tey. Sonko bu nekkee ci lii euh, police yaa nga teg mhm. réseaux sociaux yaa ngi wax mhm. am na loo xam ne euh, tey Sonko ci lu mu nekk rek ñu ngi koy jéem di ko buntu xalaat di ko def ni di ko def nii kon loolu le président Macky moo ko may ah. euh, bës boobu moo ko may mhm. kon tey tey bu ñu demaatee ba mu ngi mu jël ay élément am tëj ko moom mu ni dama leen di dama koy seetee damay seeti ñooñu voilà ñu dem ñu ni ko doo dem doo doo ci dem xam nga loolu tamit ba tey hmm. mi ngi ci bës ba ndax def na loo xam ni mayaat na loo xam ni ci moom atu lu mu lu moom lu mu def rek Sonko lu mu def rek bu ñu ko indilee leneen rek bës bi day ñëw ci lii wala loo xam ni day am loo xam ni da koy yokk mbooloo kon donc am na loo xam ni nit ki bu ci nekkee xam nga tey ma nekk ci dara nga ma ko yàqal chaque jour nga di ko yàqal te yàqal nga ma ko yàqal chaque jour may gën a am loo xam ne day am damay am motivation wala may innover ci dara loolu da may bàyyi ci biir mais deful loolu moom moo ko lii mu nekk lépp ak ni ko nit ñi bëggee gi tas gi mu am yooyu yëpp moom moo ko may wax dëgg yàlla moo ko defal d'accord uh-huh. mi ngi noonu ajaratu ndax injustice nga ko euh, jàppee wala itamit insécurité la ñuy bañ ci réew mi ba tax na jàpp gu bari gi jàpp nga insécurité la wala injustice la. non man suka laay ree maa ngi ree ni naan moo ko ko may yàlla mooy maye yàlla mooy melal ku nekk nu ko neex. Mm. je crois que am na loo xamante ni buñ ko dundee injustice peut-être loolu. voilà très bien loolu la mais dama ni bës bi xam nga li def nii yëpp ay nemmeeku tur yooyu yëpp mu topp ci di ci topp am loo xam ne moom moo koy gën a defal. waaw ma ne ndax lii injustice la wala insécurité la ñuy daw maanaam jàpp gu bari gi. waaw man li pour une fois tey ma d'accord ak Omar. Mhm. xam nga koo jàpp doomam tëj ko te defu la waxu la. Mhm. bu dee noonu la demee. waaw da ngay gën a yokkal sa bopp ay noonu. parce que da ngay wax ni sama noonu sax yéene ma ko kaso. Mhm. donc am na ci man dama bëggoon a xam xale yi ci ban contexte lañ leen jàppee. am na ñoo xam dañu dem ca ndajama di ñibbi wala dañ leen jàpp. am na ñoo xam dañu leen a ci yoon wi. waaw jàppale man ak siwuñu sànniwul xeer defuñu dara ak siwuñu taxi wu dañ doon ñibbi meeting boobu amul xeex amul xulo amul sànni xeer. mais loolu moom a jaaxal. bañ fa jógee bale nañ place ba ba mu set wecc. waaw kenn yëgul lu benn problème. mais loolu laa la wax loolu moo ma jaaxal. Mhm. xam nga bu fekkee ni noonu la demee ñoom ci seen bopp dañuy créer seen bopp yeneen ennemis yoo xamante ni jaru ko man je crois que. Mhm. fii langue bi toll ci biir Sénégal. Mhm. na ku nekk dem ak sa àqu lay taala ku nekk seet ci yàlla la wala boog ku nekk toog sa rok lu la yàlla may nga jël. te ñu bàyyi tooñ beeg xoqatal beeg yooyu bu fekkee noonu lañ jàppee xale yi loolu. du lu jaadu tey ji buñ ko woon sama rakk ma neex. macha allah jërëjëf ajaratu Betty alaaji noo gisee mbir yi. <coughs> waaw man de e, xam nga jàpp moom. Hmm. su fekkonte ni ci boor yëpp la amee. Hmm. bu boobaa di nga ne sax ñiy jàpp peut-être dafa am ñenn ñoo xamante ni ñu ngi dëngal ñu di jàpp ngir kaaraange réew mi. Hmm. waaye bu fekkee ne jàpp moom dafa jëm rek ci benn côté. dafa am lu muy nuru. xam nga bu fekkente ni bi dañ ne xam nga beneen saa yi ñu ne diw wax na lii ñu jàpp ko mais diw mi wax loolu da ngay gis ci beneen camp bi diw mu wax lu gën a garaaw loolu di doxi soxlaam si loolu nag bu amee nit ñi dañuy constater xam nga tey yi fi mu toll ni li ñaan lu ëpp tuuru foofu na ñaan yàlla bañ a yegg ci niveau boobu parce nit ñi ñu ngi constater rek chaque jour yaa ngi acharné wu ci benn nit hmm. ak njabootam ñi ànd ak moom à chaque fois ngay kii rek nit ñi ñu ngi constaté. di xool rek di wax naan woy way du nit ñi du caagi ni jóguñu rek li ngay def xamuñu ko. mais lépp loo xamante ni bii xew na rek nit ñi ñi ngi naan ah lii de xew na ñu waaw kii moom lii mbir mi day gën a garaaw tension yi di gën a yéeg te foofu waruñu fa yegg. man damay jàpp ni pareen saa am na ñoo xam ni liñ naan buur aayut dag yaa aay. Mm-hmm. pareen dafa am ñoo xam ne dañuy wut lu neex. Mm-hmm. ne lii bu ma ko defee peut-être dina ko neex mais jàpp ma ni yi ñuy def nii yëpp sax président Macky Sall leen ko sant. Hmm. parce que pareen saa yi nga gis ay dérives yoo xam. ni wut lu ko neex daal. du lenn lu mu koy yokkal lu dul sax pareen saa yi sax da koy wàññil. Hmm. mooy comme li Omar euh, doon expliquer donc pareen saa yi ñenn ñi dafa mel ni dañuy wut tur xam nga li nga gis keroog. ñi hmm. yor bandelor daal di wax ne. ay ay kii waxuñu dara président Macky Sall wax ju ñaaw. mais alkaati ba ñëw ne ko bif xëcc ko. xam nga loolu. alkaati boobu président Macky Sall sant ko loolu. sant ko ne ko demal euh, bugguma fay gis dara. Mhm. te loolu mais ñoom ñoom loo xam du politique du dara askan wu taxaw di wane ni kat am nañ kii ak yooyu bind ci loo xamante ni bi saaga wuñ ci waxuñu ci wax ju ñaaw lu du rek seen revendication moom sax moo gën a jaay mbir ma xanaa xamu ni. Ah, euh, xanaa xamu ni su fekkoon ne. su fekkoon ne bàyyi nañ noonu oto ba day daw rek romb. mais lam ko Hmm. moo tax nit ñi gën a xam exactement. lan mooy mbir mi. te bu dee si bu ñu defoon seen bu ñu riposté woon rek. waaw après ñu jàpp yow yóbbu. Ah, waaw te pourtant dañ doon ñaxtu. xam nga ci fair play. te loolu loolu loolu lu baax. ñaxtu bi jàll na nag. non mujj na jàll. Mhm. mujj na jàll parce que moo ko jàllal. comprendre nga donc moo tax il faut que ñoom ñooñu ñu xam ni li ñuy def noonu même bu fekkee dañ cee jublu ngir jàppale président Macky dañ koy yàqal. Mhm. parce que jaru ko. am na yoo xamante ne bii jaru ko ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. am na noo xamante ne mais alaaji am réew est ko war a teg yoon nag ndax réew doo ko bàyyi. waaw waaw mais li waay neex jaareel waay neex loolu yoon la. waa damay laaj dama ne. am réew boo non bu war a teg waaw dama ne non léegi non léegi dama laa laaj beneen dama ne même jàpp gi su bare itamit am réew itamit wax dëgg yàlla est-ce que war nañ koo bàyyeet lu waay neex def sa biir wax nga ne Ousmane Sonko dafa déplacé dem dem ñu bañal ko ñu leen du ko gis waaw la dafa amul autorisation wala amul droit seet ah, leen loolu de Ousmane yàgg naa dëggu fenn ñu ne ko doo dugg loolu am na yàgg na ah, mais mais ji ah. nga ji nga. xëy nañ baare këram ni ko doo fi génn. nga ji nga <laughs> loolu kay. ji nga tey jii ah, xam li ñuy wax. sànq Bam Damboj mu ngi koy junj Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse. Mhm. mais li mu def noonu est-ce que tey jii bu ko opposant defoon est-ce que duñ ko tuddee manifestation non autorisée. waaw dëgg la teg ko ci ay daan. Mhm. parce que benn provocation dem ba ci koñu jàmbur taxaw naan beneen yoon ñoom ñoo lay jël si bu ko ab opposant defoon tey jii ay tànkam du laal suuf. Mhm. teg ci Ablaye Wade 2011 bi ñu bi ñu toll fii ci réew mi. ah Ablaye daana jàpp ji nga noonu déglu ma li may wax li may wax ni xoolal li may wax ni moom dama ko dund day jàpp ah. day jàpp dama lay wax jàpp gi jàpp gi ni muy demee lay wax jàpp gi ni muy demee jàpp gi ni mooy manifestation day am hmm. mais moom daan jàpp ay ñoñam Ablaye waaw manifestation manifestation day am Ablaye dama lay wax saan jàpp gi ni mu doon demee da nga da lay yóbbu commissariat téye la bariwul ñun doon jàll kaso de ñoom Alioune Tine ak ñoom ñooñu dem négocier ko waxtaan ak ñoom bu lëndee ñu bàyyi leen wala ci week ñu bàyyi leen. noonu la daan demee moo tax joo ci gis koo xam ne dañ koy téye ci kaso rek tax mais fii tey ji imagine nit ku filmé wala nit ku ne libéré ab Pape Alé ñu yóbbu la instruction nga war a toog 6 mois ci kaso bi. bu lay bàyyi du la àtte parce dañuy xam ne defoo dara. dañuy xëy rek booy la bàyyi la ci mbedd wala nit waa ak reetaan waaw wala nga def humour cest day dem ba <laughs> day dem ba day day soof maanaam des fois da ngay jékki-jékki nga nii même ñun ñi suñu mbokk yi rek da ngay dégg sa mbokk wala la moytul dañ lay jàpp de moytul yi wax te pourtant waxoo dara ah. waaw te war ñu egg kenn ku woo na la bés ni la tey ngeen a moytu man woo nañ ma ba taay ni ma Macky Sall dina la jàpp mais lu ma wax dara damaa wax dara man lu ma wax Macky Sall dara ci daal nañuy meeting di def li ñuy def mais ji ji nga len nag li ko indi mooy ñi warta politique ñoo dugg ci politique justice warul politique takk der warul politique pour man ñoom dañoo war a yem ci seen liggéey bàyyi politiciens yi nag ñu def seeni i mobilisation lu mën ci doon ku ku loolu moom garaawul moom incha allah ajaa suba ak jàmm bu ànd ak dogal borom bi dafa am benn femme bu ma bëgg a indi victime di net kan la dama ko bëgg a sauver sauver waaw kan bi daal ma nga dajale xaalis bu bëri oh. nee nañu mooy jabaru Mame Mbaye Niang mi ñuy wax problème ah, léegi nag il faut ñu indi ko teg ko fii pour sénégalais yi ñu leeral bu dee du jabar Mame Mbaye ñaa ki def audio bi mi ngi sacrifier doomu jaam waaw ah mhm, il faut ñu indi ko fii leeral ko bëgg yàgg quand même ki def voix beet mhm. dinaa tudd turam bu suba <laughs> moo ne jabar Mame Mbaye ah, Niang lijjanti nga ki def xam naa ko ok xam naa ki def baax na bu suba ak jàmm ñu indi waaw ah, nii la del ma yi ngay def waaw kay bu ngay def njuboo du ma tudd màtt bi mbóob mbóob yow bi dalaa màtt wala mbóob génn ci rajo bi dugg ci euh, ma ne yow bi dalaa màtt wala màtt la <laughs> mbóot la yow <laughs>